عليك صلاة الله ثم السلام فبرهام جد عاشق فيك واميق زماني wa ahlu zamani déglu leen sëriñ bi li muy wax day ci xola mu ne mbot ma moom royaat ci Ibrahim ñu yaakaar na fa em moo teg ci nag wa ahlu zamani ak sax ñun ñii di ñoon jamono bay ànd ak moom. mu ne nit daal ak kum bëgg. sëriñ bi nee nañ góorgóorlu ci bëgg. nañ góorgóorlu ci liggéey. mu ne sëriñ Abdourahim li waxoon démb. da ngeen a defoon da doon kaf. xam-xam bu wér pegg la dóor. waxi nit pegg la wax. nañ góorgóorlu ci bëgg. ay piste la maanaam yëf yi ñëwatul sa ne bàyyi mooy sama maam ñëwatul foofu. nee na mbir yi yamul rek ci bàyyi ma jur wala mooy sama maam. wala man day muqaddama bàyyi laa. wala man xutbu zaman laa. am na lépp loolu. mu ne nag fekkee dégg nañ ko. nekk sa ko bàyyi neex na de. waaye am na lu gën man ca kaw. nee na moom day loolu itam da koy jëli. nee na du nekk sa ta bàyyi rek de ne xaj ci toog foofa la. mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na doom de Fatimatu Zahara yow kat Fatimatu góorgóorlul na nga jaar fi gaa yi jaar. waaye mbooloo mi tool nga jógee fële ñëw ne man kat doomu yonent laa te jaaroo fi mbooloo mi jaar mu ne bàyyi day lu leer la wax man Ibrahima ràññeewuma sama doom yu baax ya topp mbaax mi munu may ràññale samay doom yi baax ak samay topp yi baax waaye nañ baax waaye ku baax yaag moom a far waaye yal nañu yàlla baaxal tant bii daal defuñ ko ngir dara lu dul bëgg a baax ak bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg Cheikhu Tidiane radiyallahu anhu bëgg Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu mu ne lii képp moo war a tant bi mu ne ma ngay wax ci sëriñ mu ne bi mu ñëwee ci baay. mu ne bi mu ñëwee ci baay. mu ne ba tey mi ngi wax ci sëriñ. mu ne mooy koo xam ne soo ko gisee rek mu fàttali la yàlla. mu xëy nag ne ma ngay ak ci baay. fekk baay mel na mu war a mel. mu ne mu ubbi bunt bi dajeeg baay rek. mu ne mu ne kenn bët unt bi dajeeg bàyyi. bàyyi ne nii waa ji waa ji yuuxu kat te doon àkk si ne dal la bàyyi ne nii rek mu commencé yuuxu allah allah allah. mu ne loola tey mandargay sëriñ dëgg la bokk na ci mandargay sëriñ. soo ko gisee rek mu fàttali la yàlla. mu ne bàyyi waxut moom jëmmim jë waaye gaayam rek ka ca gën a ndaw soo ko toppee rek mu sant. boo ko toppee rek boo ko toppee rek mu defal la bagage mu defal la bagage. nee na borom jiin yii ak borom pantalon yi borom pantalon yii. li bàyyi daan wax. li bu mag ba bàyyi tuuti daan wax radiyallaahu anhu mu ne ñëw sa dara ba ñëw ca dal la waaye booy yi sol jin booy yi bàyyi yii sëriñ bi guddal sa kurus gëstu xoo ba xam sa borom tàggihin lañ may waay ñoo la raw ci bara sa kurus gëstu xoo ba sa borom tàggihin lañ la may waay ñoo raw ci barahama mu bokk na ci mandargay sëriñ soo ko gisee mu fàttali la yàlla su waxee mu fàttali la yàlla su jëfee mu fàttali la yàlla waaye yow gis sëriñ rek sa xel dem dem ci ñoom ak laaj. nee na day loolu fi am. mu ne boo ubbee internet bi da ngay waaroo. mu ne léegi nit ñi moom lottan ci xàmmee sëriñ ak lu dul waaye suñ dawalee suñ xel ci waxi Cheikh Tidiane boobu. ne boo àndee ak sëriñ mu woon la boppam muruj na la ndax bu fi sëriñ bi jógee foo jëm sëriñ baa ngi laajte yi ki nga xam ne mënu fee sax bu fi jógee foo jëm su la wanee adduna bii adduna moom yàgg yàgg dem ba ko wala mu dem balaa nee na rek kay addina oto bu rafet kër gu rafet yére bu rafet or yeeg bagage yi daal xujur xajar yi yim xam yim xamul da ngay toog ba yàgg nga dem ba ko fi wala na ko ibu ñu foyee woon ne lii daal bagab caax la mu ne nan la ko ibu ñu foxoon ci olof ba bas ba gëpp ci Yàlla dangay caax dal ci yéen déggul olof mu ngi mel ni ab tame wala grillage nga tiimal ko ci robinet dangay root ndax dana fees du fees de mu ne àddina boobu nag ku ko woon rek sonal na la Seexu Tijaan mu ne ku la war yàlla noppal na la waaye jërëjëf Baye mu ne Baye wax na ne kenn mënta xam yàlla wala nga am yàlla lu dul man Ibrahima sama bunt bii nga jaar wala nga jaar ci ku jaar ci ku jaar ci sama bunt bi amul góor amul jigéen mu ne jigéen ñi sax jigéen ñi bàyyee gën a garaaw góor yi bàyyi mu ne jigéen di njëkk taalib téere ci Afrique gii kan la kooka tey bagaas yi la doom yi bàyyi la tey daa roqee sëriñ bi mooy ñu def ndànk de am na ci jigéen ñi duñ ay jigéen de góor lañ mu ne tant pii jigéen mënu ko taxawal déedéet eh. sëriñ bi nee na lii du taxawal jigéen góor rek ko man su fekkente ne nag nga lan mooy góor góor ak góor. nit ñi ñoom xamewoon góor ak góor. góor ak góor mu ne góor ak góor xamegul leen. wala ñu bëri xamuñ leen. wala ñu leen. mu ne waaye Cheikh Tidiane. waxoon na ne. waxoon na mu ne góor góor mooy ki nga xam ne. mooy ki nga dog na ci keneen ku dul yàlla ba pare mu ne xubu xubu xuburul mu ne bàmmeelu mbóot yi mu ne bàmmeelu mbóot nu góor ya waaye jërëjëfee bàyyi nga jëlaat bi mu ne ndax dégg nañ loolu mu ne gor mooy ko xam ni mbuum jaamam dog na ci leneen lut yàlla ne kookoy kan nag sëriñ bi day laaj nañu waaye ñas day boo fi teewee kenn xamul jërëjëfee Cheikh Ibrahim mu ne yàlla na yàlla dimbali naxul ñu de mu ne sëriñ bi naxul ñu de lam waxoon def na ko loolu képp la defal taalibe yi def na ko defal na ko mu ne ku dégg diwaani bàyyi da nga xam ni kii raw na ñëpp te kenn du ko raw mu ne dégg na ab booy naan bàyyi fa mu jëlee waya mu ne booy bi wax bu garaaw la mu ne bàyyi fa mu jëlee wayam ya nee na du fi yëpp de te way wu ne bokkut ak moromam fa mu ko jëlee nee na tey jii boo ñëwee ndar soo ñibbee kaw la man ngaa nettali na ndar mel nga dem Ziguinchor boo dikkee mën ngaa wax nam mel nee na gis ak dégg de sëriñ bi yàlla may yàlla yal nañu yàlla may yàlla yaa rabbi yal na xool yi fees dell yaa rabbi yal na loxo yi fees dal ak barke yaa rabbi yal na yàlla may maabatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla may maabatu cheikhu Tidiane yal na yàlla may maabatu cheikh Ibrahim radiyallahu anhu buñ ko amee jeex na. mu ne am na ñuy wax leneen nan dem ak loolu ku am baay jeex na. nee na day li wax. <laughs> wallaay du li nekk maama ma tax nee na li tax mu wax loolu ñun ñëpp dañ topp bàyyi. ñun ñëpp kat li tax ñu topp bàyyi. doom yeeg sët yeeg muqaddam yeeg taaliba yeeg ñun mag ak ku ndaw ak jigéen. kenn ku ne dafa am loo bëgg. doom yeeg sët yeeg taaliba yeeg muqaddam yeeg ñu mag ñeeg ñu ndaw ñi ñëw jublu bàyyi mooy dana am lu bëgg. kenn ku dafa am loo bëgg ci bàyyi. kenn ku ne. nga am loo bëgg ci bàyyi. te da koo bëgg a jot war koo jot. war koo jot. dama ni laaj mu ne ndax du loolu ngeen toppee bàyyi Muhammad al Misri mu ne Muhammad al Misri dafa am wax jum wax mu ne nañ bàyyi xel wax jooja képp koy aarif billah bàyyi waxi Misri jooju ndax nag nga mën a góorgóorlu bañ a ut benn kiiraay sa digganteeg baay mu ne misri mu ne mu ne séedab yàlla wa yàlla toog na ca fes ca della dootu ko wàcce ila imita na di mu ne fees na ko teb te dootu ko wàcce ba ila imiti te moom yàlla moom rek kay sax di nekk yàlla ñaari yàlla du mas a am benn waxtu da nga da nga dégg ay arif billah ku fekk fi ne ku fekk si dënn naan man la man la waaye kenn ki rek la. mu ne benn waxtu day ma gis junni kenn ku ne woote ne man a waaye du kenn kenn rek la. mu ne yàlla moom kenn képp la. du ñaar du ñett te du ñeent. mu ne seetu yonent yonent bi toog na ci fees na ko teg. mu ne seetam yonent bi sallallahu alayhi wa toog na ca fees na ca teg. yonent yi doon ñëw moo doon place. mboolem yonent yi doon ñëw moo doon de place. fa aayu jami rusli aayu muhammadin fa minhu ilayhi kullu shanin muhammama moo doon dimbale. mu ne yonent yi yëpp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doon dimbale. kon li mi si wax fees na ko dëgg la. kon li mi si wax ne yonent bi fees na seesam ba dëgg la te du ko wàccati ila yawmi diin ndax bu ko wàccee gaa yi dem ba ko. nee na xaajut ak pare wàcc sees bi ba léegi yonente baa ngi dox dox bi taxawut de ma ngay daw daw yu métti nag ma ne sëriñ bi day moo wax loolu nee na moom buy wàññi yorom ko gaa yaa ci gannaawam di daw laa ilaha illallah mu ne Seydou Koulibaly mu ne Seydou Koulibaly mu ne. Cheikh Tidiane radiyallahu anhu toog na ko fees na ko tëb. waaye Seydou Serigne. mu ne kóori bi toog na ko fees na ca fees na ko tëb. mu ne kóori mooy olof. olof bi toog na ko fees na ko tëb. olof bu rafet ba. taw na ca fees na ko tëb te dootu ko wàcc ci lay mitraat yi mu ne benn sees kat moo des gaa yi def leen sees bi des kat mu ne ñent yee am na lu ma junj ba ci juróomeel ba kat moom nee le day tay moom junj rek ko fi indi. ñaar ñett ñeent juróom xam ngeen li juróom. mu ne benn ñaar ñett ñeent juróom xam ngeen li juróom. benn bi am na ko jël. benn ba tam na ku ko jël. ñaar bi am na ko jël. ñaar bi am ku ko jël. ñetteel ba am ku ko jël. ñeenteel am ku ko jël. benn naa nag. kan la koy jël. Ah, ah. mu ne kenn du ko jël. jël fan. jël fan. doon laaj rek. mu ne moom day dafa war a laal. Ibrahima mii jël wàllam. waaye di jël wàllam. mu ne cax ba mu ñu caxoon ne ku ne dafa topp bàyyi am loo bëgg a jël war ko jot te danga ko war a jot maqat ataani awalan wa axiran yaa axiran yaa awalan ñu bàyyi ma ne préparé fii ku fi amul da nga ñàkk fayda mu ne fii kat ku fi amul yaa ñàkk fayda mbaa nga bëggut nee na ku nangu nag jox sa bopp koo xam ne dalay jaarle fu ko neex naan la maay nangam di la xulli bata mi ay maay nangam te du dara ñu ne sëriñ bi nee na nañ bàyyi booy dem nañ bàyyi naxaate bi ngeen bàyyi show bi te déglu sëriñ bi mu ne soxlawul yuuxu yi de xel mi la soxla mu ne misri mu ne première place ba borom fees na ko dell deuxième place ba jël nañ ko fees ca troisième place ba jël nañ ko fees ko quatrième ba fees nañ ko jël nañ ko juróomeel ba kat moo des misri bi mu ne moom toog na waaye waxut fees naa ko de daf na yaatu na ku bëgg na ñëw toog su waxoon na fees naa ko duñ ko ko bàyyee la wax kon ñun moom bu toogee seen ñun fu ñuy toog buñ ko bàyyee moom kenn fuñ jëm monsieur daal commande la mu ne man Mamadou Missirah dey chaise ba des toog naa ci waaye kat chaise bu yaatu na de képp ku bëgg kay toog nee na daal mbir mi mbir mi bëgg la ndax dégg ngeen wax ji ndax dégg ngeen sëriñ bi nee na waxut a njàccaar yi de aarif yi billaay dof yi a waxal ñi nga xam ne naan nan ba mandi te dootul maar mu ne juróomeel ba moom toog na waaye yaatu na waaye benn waay jógee fële rek toog ci chef bu yaatu booba xool ba jë lekk cere ba suur ne waa ji képp ko bëgg dara ci bàyyi ci man la ne wala koo jaar ci man doo àgg ci affaire bi wala doo am bàyyi waaye misir mi maanu mi moom waxul loolu ndax ne juróomeel ba toog naa yaatu na ku bëgg xañ nga a naxaatikat yi bàyyi li ngeen def sëriñ bi i waxi misiri njee ko gënal waxi lekkatu cere bi buñ ko bàyyee kooku ji garaaw garaaw fu ñu taxaw ñun lu ñuy am mu ne ndax dégg ngeen ko wala déggu leen ko ku leen bëgg def dof bañ leen foofu la yem ci waxtaan yi wasalaam ñas jërëjëf